alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat salawaatullahi wa salaamuhu ala ashrafil aalamiin sayyidil awwaliina wal aaxiriin nabiyyu rahma alladi qaala fi nafsihi idaa araada allahu bi abdin xayran ajala uqubatahu fi dunya mawlaana muhammad ibn abdullahi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu ayuha almushaahiduuna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayikum bi taxiyati alislaam taxiyatan mubaarakatan min indillahi tayiba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 ñu ngi leen di jox loxob xol bi ginnaaw bi nu santate sunu boroom julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira ziyaar leen ndokkeel leen balu leen xaq baal leen ko ñaan sunu boroom mi am jàmm am yërmade am barke yal na yàlla bokk nu ko defal mën ak yéen bi jaaye Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nuyoo ziyaar bi ñu jiital ci kilifa diine yi ñaanal leen yàlla la nekkoon ca seen maam nekkoon seeni baay yàlla na ko ci seen kaw ñaanal woy jur yi nga xam ni ñu bokk njaboote yàlla na yàlla dolli guddal fan yi te dolli seeni wér jeg leen nuyoo directeur Haj Makhtar Sylla ziyaara ko ñaanal ko yàlla yàlla defal ko tawféex ci liggéey bi defal ko mboolem personnel am bi nga xam ni ñoo ne ci liggéey bi di ko jàppale teg ko ci loxol soxna Ayda mu jotalal ñu ko ñëpp ziyaare ak ndokkeel yi ñaanal bu baax nag mm, soppe yi nga xam ni ñooy bégee jilsatu nabi di jataayu siiduna Muhammad wi sama jigéen soxna Walimata Jóob tabar fa waaye sama jigéen Ajaa Yaa Juuf tabar fa kàllaa ziyaar leen ndokkeel leen ziyaare sunu woy jur Haja Binta Saw ñaan sunu borom yàlla dolli wéram barkel njabootam ga yëpp teg yéeg yeeg nuyoo yeeg ñaan yi ci loxol Alaaji Idrissa sunu kilifa mu rogalaat ci rakkam yëpp ñaan sunu borom yàlla na yàlla taxawu biir ak biti jagleel nuyoo bu baax eh, sama jigéenu bopp nag macha allah rabbi moom it eh, macha allah Aja eh, Jaara Fall nga xam ni moom it sama jigéen la sama lépp la ñaanal ko yàlla yàlla taxawu ko biir ak biti comme niñ koy ñaanalee Adja Marie euh, bu ko defee mbokk yi dellusiwaat nañu ci seen émission bi nga xam ni moom la ñu tuddee Jilsatu bi ci waxtaan wi ngeen miin suba su ne ñu koy ànd macha allahu rabbi waaye toogoon ca jataay wa Moustapha toogoon moom ak saxaabatul kiram te ku nekk di joxe ñettam boobu ba léegi mbokk yi mag yéen suba su ne ci ñett yi la ñuy nekk incha allah wax naa ko nee naa leen daañu joxe it eh, liggéeyu maam Serigne Touba Xaadim Rasoul wu mag wii nga xam ni moom la liggéeyal njol màkk ba tax eh, tabar la mm, bis bu tedd bii ñëpp ànd di ko wàcc wax naa leen yoon wi mu jaar joxoñ ñu ko nag moom moo ko joxoñe nag moo ko joxoñe mu ne ku bëgg a liggéeyal yonent bi da am ñetti melokaan ma wax leen ni ñetti melokaan yooyu maag yéen daañu ko waxtaane moom moo ko joxoñ ci téeréem bu ñu tuddee xattaaba qalbi ku fa dem da fa dégg Sëriñ tuuba wax ni wa man takun bi rasulillahi xidmatuhu musaaxibu sidqi wal ixlaasi wal xasani te ñun ñëpp d'accord nañ ni maam Serigne Touba liggéeyal na Seydouna Muhammad ah moom nag mi liggéey ba Moustapha fay ko war na ñun ñëpp suñu conseil nañu ku bëgg a liggéeyal yonent bi da ngay mel melokaan yi jàpp naa ni mbokk yi ñun ñëpp war nañ xam melokaan yooyu nee naa la ci téeram boobu ñu tuddee xattaaba qalbi fala ko andee incha allah danañ ko def waxtaan mën ak yéen ci incha allahu rabbi fan yi balaa ñuy dem ca màggal ga ñu ànd waxtaanee ñett yooyu nga xam ni maam Serigne Touba ci la wax ni ku bëgg a liggéeyal njol màkka ci ngay jaar ndax man ci laa jaar ba liggéeyal rasulullah mbokk yi waaye ñu àndoon ca jataay ba yàlla joxe ñettam waaye ñetteelu yàlla bi mbokk yi ñoroon ñu lool ba tax maag yéen ñu koy waxtaane fan yi moom la ñu waxtaane fan yi ba moom lañu ñu mujje maag yéen démb e tabar fakalla muy wa badanun alal balaa i mu yàlla ne na bëgg na ñett ñetteel bi mooy yaram wuy muñ nattu yàlla ne bëgg naa ko de nit kuy muñ nattu wa badnun alal balaa'i saabirun yaram wuy muñ nattu yaram buy muñ nattu waxoon naa la démb ne la maam Cheikhul Xaaji Maalik dafa wax ni ala farda maa yaqdil ilaahu bi mulkihi nit pour mu mën a tàmmal boppam muñ Moussa xam nga nan lay def day fexe ba jàpp ne lu yàlla dogal rek noonu la kullu ma qadarahu alqadiru narda bihi fa innahu jadiru Moussa nit pour mu mën a muñ day fexe ba d'accord ndogalu yàlla yi danaa lu yàlla dogal noonu la amul débat du ma ko jiiñit kenn sunu borom a ko organiser nii moo ne woon su ma yegsee ci at sàngam wii nii ak nii lay doxe Moussa ñu bàyyi nit ñu ñuy jiiñ affaire yi nit ñi mënuñu dara waay ku mën dara du dee bay ma waay ku mën dara dama ne du dee te koo fi dégg ñu jiñ ko ne ko moo def nangam dana xëy nga dégg koor baa ngi ne muy moom ah mënul <laughs> su mënoon du dee ah nañu gëm yooyu mbokk yi beneen bi ab jullit du nangu kenn di ko tëkku muy tiit bu mu gëm ni diw moo def lii bu mu ko gëm gëm googu moo jaaduwul gëmal ni sama boroom ci kunam gi la mbir yi doxee kunam gee ñëwagul rek su kunam gi ñëwoon du tëdd fii kunam gee su kunam gi yegsi woon nangam du dal sama kaw kunam gee yegsiwul ci kunam googu la nangam dalee sama kaw wa wasbir alal balaay in ataaka waalam bi anna daaka min mawlaaka bu ñu xoolee ci tanbihul xaafiliin benn téere la borom xam-xam yi xam nañu ko xaala faqihun dafa am benn nitu yàlla bu doy waar bu ca wax ni anna al abda ni ki jaamu yàlla laa yudriku manzilat al axyaari illa bi sabri balaa moo yegg ci niveau bi ñu naan ñii la yàlla tànn ay jaam jaam yi ñu naan jaam ñi yàlla da leen a tànn a ah, Moussa dañuy dégg yàlla naa bokk ci ñu yàllay tànn mais nitu yàlla beneen dafa am ay critère ñu ne ko ban critère mooy bi nga xam ku ko amee yàlla tànn la mu ne du ko mën a am moom jaam yàlla tànn ko illa bi sabri lu dul ci muñ Moussa nit su bëggee yàlla tànn ko ci ay gaayam faaw mu mën muñ illa bi sabri ala shiddati wal adha tartar ak nattu faaw mu ñëw nga muñ ko pare pour yàlla tànn la Moussa yàlla du tànn yambar yambar mooy ku koo xam ne dara loola lal yambar mooy koo xam ne dara du ko dal dara dara yàlla ne man du ma tànn yambar yàlla mosul yónni yambar mosul yónni tappet balaa tànn nit dana la nattu ba noppi ba muñ natt mu dog laa def ab nga waayam Moussa ku gën siin muy waayu yàlla jaar na ci nattu nattoo di kër këraanu awliyaay ku weddi laajal xayrul anbiyaay faw nga jaar ci nattu mooy doon fi la yàllay natte pour xam lan la soxla ci yow moo tax natt la tudd a ah, natt la tudd te nag Moussa gis nga natt boo xam ni boo nattee teggi boo nattul teggi jar nay bàyyi xel de waaw léegi nga dégg gars yi di ko misaal ci dee naan dee moom natt la woo xam ni ku natt teg ku nattul teggi waaye nattu it xanaa xamoo natt la ku natt di nga teggi ku di nga teggi Moussa natt faaw mu dal ci jaam jàmm la ne da dund ba dee sans nattu mënul ne waaw nitu yàlla bi ne lu mu tar tar tar tar tar da muñ nattu wi pour mën a yegg fi nga soxla ci yàlla waxat amara allahu taala yàlla moo ñu digal tanbihi tanbi moo digal nabihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sabri ci muñ moo ko wax yonent bi yàlla dafa joxoñ yonent bi ne ko pour nga dem ci niveau faaw nga muñ yàlla def ko ne wasbir kama sabara ulul azmi min rusuli kon loolu alquran la yàlla moo ne Muhammad muñal soo bëggee am niveau <laughs> allahu akbar mbokk yi ñun ñëpp nee nañ lañu bëgg mooy lan dañoo bëgg a jubóog yàlla yàlla nag Muhammad la xool ba mu neex ko ne koy boo bëggee jubóog man da ngay muñ wasbir kama sabara ulul azmi gis nga Ibrahima daa juboo woon ak man xam nga ko may dafa mën a muñ Moussa daa juboo woon ak dafa mën a muñ Noox daa juboo woon ak man dafa mën a muñ Isa daa juboo woon ak man dafa mën a muñ nabi ñëw nga mu ne ko aw mu ne ko muñal de soo bëggee jubóog man wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli mbokk yi muñ dafa bokk ci grade yi may nit mu yegg fi mu soxla ci lépp nag Moussa xataa àdduna musa xataa àdduna sax ñi ko bëgg mais dañuy muñ àdduna sax ku ko bëgg boo muñul doo yegg fi nga bëgg amee ah, de mais ci misaal ki am Moussa bitigu mbagg a ah, borom bitigu mbagg boo siin boo ubbee xol ba loo ca nekk <laughs> nee ma euh, bitig bu réy <laughs> waaye dama ne su muñul toog xaar dama ne du am bitig bu rëy kazalika nag boobu laa joxe misaal toppal yépp nag ci àdduna àdduna sax dama ne ku ko bëgg da muñ ku muñul doo jot dara jigéen ci tabbi ci néegu sëy bëgg na daa war a neex waaw daa war a neex ñuy xàppi rekk fan lam déedéet da ngay muñ metit yi fi am pour nga mën a muñ am taraanga yi yàlla joxe sunu borom ne Muhammad muñal jafeñ-jafeñ yi parce que day ñëw an ibnu abbas radiyallahu anhuma jële nañ ci abbas ibnu abbas mooy nettali jële nañ ci ibnu abbas mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni awalu cheyin katabahu llahu taala fi lawxil mahfuz li yàlla njëkk a bind ci lawxul mahfuz ñetti mbir rek la mooy dafa bind ana allahu laa ilaha illa ana boobooy benn bi beneen bi mooy mu bind ne wa muhammadu rasuli muy ñaareel bi ñetteel bi yàlla bind ne man istaslama li qadaa'i wa sabara ala balaa'i wa shakara lii naamat naamati katabahu siddiqan wa baathahu yowma alqiyamati maa saadiqin yàlla bin wa man lam yastati li qadaa'i wa lam yasbir ala balaa'i wa lam yashkur li naami fa yataxizan ilahan siwa siwaa'i no abbas nee na yonent bi nee na li yàlla njëkk bind ci lawxul mahfuuz mooy amul benn buur bu nu war a jaamu ku dul man muhammad de sama yonent la waaye bépp jaam boo xamante ni wommatu na ci samay ndogal lu ma dogal mu ne noonu la muñ samay nattu man yàlla sant ma ci xéewal yi may def danaa ko binn mu bokk ci ñi nga xam ni ñoom laa wax ni ñu dëgguñu bu dekkee yowmal qiyaam maa siddiqiina ñu dëgguña laa koy booleel mu ne waaye ku ku nangu wala wommatu ci li ma dogal muñoo samay nattu santoo ma ci taraanga yi may def yàlla nee na wutal beneen yàlla xamal ni man génn naa la ci samay jaam bokkatoo ci samay jaam allahu akbar mbokk yi kon da jàpp ni kudul muñ neel génn naa ci jaamu yàlla yi man wuti naa beneen yàlla kon boo xamante ni moom mooy sama yàlla waaye yàlla mii di nga xam ne moo yónni woon yónni la Muhammad nee na moom newatul sama yàlla mbokk yi muñ nañ ko boole ci sunu dund ida qada allahu alayka ma qada aid lahu sabran seex na seen saat bu la wax lu yàlla dogal mbokk yi préparé gu muñ yàlla ne bëgg naa wa badanun alal balaa'i saabirun ginnaaw yaram woo xam ne daal bu nattu dalee ci kaw mu muñ ko yaram woowu neex na ma mbokk yi nanuy ñaan la cheikhul xaaji malik doon ñaan daan na ko wax yàlla nasaluka taslima bil qadaa'i wa sabra wa rida la dal balaay yàlla maa ngi lay ñaan li ngay dogal yàlla na ma neex ak lu mu métti métti métti yàlla na ma neex nattu yi nag lu mu rëy rëy rëy rëy yàlla nga may xolu mbokk yi ñaan googu daal képp ku nekk ci ñun na koy faral di ñaan boromam loo dogal yàlla na ma neex nattu yi lu mu rëy rëy rëy xol wi koy àngu te muy xolu muñ yàlla nga ma ko jox bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa yàlla na ma ko yàlla defal defal leen ko yéen ñi janoog man defal ko mboolem jaami yàlla yi bi jaahi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi waxtu wi dab na ma ma teg foofu baaraam waaye joxaat leen rendez-vous incha allahu rabbi suba ñu àndaat man ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moom la ñu tuddee jilsatu nabi di jataayu sayduna muhammad wi ñett yàlla yàllaa ngoog mbokk yi waaye des na de parce que am na keneen koo xam ni andi na ñett de waaye moom it joxaale na ay ñettam mooy kan jibril ndax moom la yàlla yónni woon yi nga xam ne moom la bëgg moom yàlla waaye mi mu joxee Muhammad ñett yi yàlla bëgg ba pare moom Jibril nee na Muhammad man mii sax Jibril bëgg naa ñett ñett Jibril man ak yéen du ñàkk man ak yéen incha allah suba ñu dooraat ko ànd ko waxtaane ko ñaan sunu boroom ñu jëm ci màggal gi yàlla dem ak jàmm fekk fa jàmm ñu del siwaat ci jàmm ñuy bàyyi ci kër yi yàlla na leen fekkaat ci jàmm waaye ñi nga xamante ni ñu ngi def laylatul katmiya gi muy guddi na Tidiane Chérif gi ak fu ko waay di defee ñu ko defee ci bitim réew ak ñu ko defee ci réew mi ñëpp nu ngi ñaan kenn ku ne fa ngay dem yàlla nga fa dem ci jàmm delluwaat ci njaboot gi ci jàmm lépp ànd ak ngërëmul sunu borom mbokk yi daal sunu bëggee àdduna jag nañ ko jox sayduna muhammad iza aradtum salaamata al ardi fattabi'u muhammadan wa riwayatal umami mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu